Merci beaucoup, Guy. Votre tableau, monsieur ci palco bi. Et sur ce, chers compatriotes, je suis venu en tant que de la représentation nationale apporter mon soutien au peuple sénégalais dans son combat contre les dérives autoritaires, la régression de nos acquis démocratiques dans son combat contre l'instrumentalisation de la justice pour neutraliser des adversaires politiques comme mon frère Khalifa Sall du mouvement Taxawu Sénégal candidat la war a doon comme mon mentor mon frère mon cœur le frère Ousmane Sonko la war a doon dafa war a derrière contre les manœuvres en faveur d'une troisième candidature de Macky Sall

que Macky Sall l'homme de Thiato veut briser duñu ko nangu dama ne Macky Sall mandat dañ ko fi tere ci mim réew suul gaz du ko tere xeeñ pour ne pas imiter mon frère ami Ahmed Aïdara ma ne gaa nañu àndandoo xeex Macky lu dagan la xeex Macky pour mu bañ a def troisième mandat lu dagan la ma ne moo tax tey ñun ñëpp nañu àndandoo wax rek non au troisième mandat te tamit nañu dimbale ngir yàlla ci nervi yi vous ne perdez rien nag yéen waa opposition bi à attendre parce que gis nga su ngeen àndul yéen damay jàkkaarlu leen wax leen ko su ngeen àndul laa troisième mandat tranquillement dem na la wi fële te kenn du ko faj non au mandat gars